ñuy taxaw euh, ma introduire euh, le vice-président euh, ab Abdou Mbow mais xam naa ab dama lay teel wax ni rek du ñu nangu nii doo doo xam li xew ci biir bu ñu taxawee par exemple ci kaaw Mimi Touré d'accord nañ que mën nga ñu wax que ni président de la République mooy nommé ak di di dindi nu mu ko neexee mais ci kaaw Mimi Touré même bokk ci seen parti lan la ñu mën a comprendre ni moo waral président jëlee ko foofu mu nekk. waaw ah bon jërëjëf xam nga yaa ngi may laaj ba pare bëgg a tontu loolu mënul nekk. Hmm. soit nag may laaj wala nga tontu. waaw dama lay laaj mais dama lay njëkkantu. waaw non mais xam nga euh, en communication moom. je viens pas le journaliste veut que je je dis ce que j'ai de dire ak li ma xalaat ne moom moo waral mbir mi. ay ci allez-y Mimi Touré lan moo tax nga yaakaar ni dafa jóge. waaw donc euh, je pense que je du ma aborder mbir mi noonu li may aborder rek moom mooy. d'abord euh, fi Souleymane terminé laay commencé mooy changement de dispositif institutionnel parce que loolu moo am parce que aujourd'hui il faut le dire euh, dafa am ay changement yu intervenir euh, premièrement mooy ci dispositif bi hmm. parce que loolu mooy li nga xam ne moo am parce que tey d'abord je dis qu'on est revenu à l'orthodoxie républicaine parce que Souleymane mi ngi wax sànq ñi ngi annoncé gouvernement depuis très longtemps mais ba léegi déggoo kenn mu ne diw mooy dugg ci gouvernement bi wala diw mooy na xam nga loolu li muy wul rek mooy euh, président de la république tey joxaat na état li nga xamante ni mooy gëddam parce que dañ daan gis fii par exemple balaa ñuy def remaniement ñu génne même gouvernement bi wax diw dugg na diw mais tey jii par exemple nit ñi mu ñemewuñ sax di aventurer di wax ci yenn yi parce que tey comme ni mu waxee gis nga dafa def conseil des ministres hmm. parce que tey même dafa def conseil de ministres ba pare wax ak ñoom remercier leen ba pare génn ay décret li ma wax ne changement dispositif institutionnel la mooy. mais lan la leen wax dafa laar non li mu leen wax loolu xaw ma ko dañ ne rek remercier nañ leen. loolu wax dëgg yàlla comme du ma ministre nekk woon conseil des ministres je peux pas la prétention wax ne lii la président wax à part ñu wax ne lii la wax en tout li mu wax moom mën nañ jàpp ne moom tey laal na li nga xam ne mooy conseil économique social et environnemental parce que bopp bi. teggi na ko nga gis muy ne laal secrétariat général de la présidence laal secrétaire général du gouvernement ba pare di dissoudre la gouvernement bi nga xam ne ay ministre lañ ay secrétaire d'État mhm. ba pare wax ne ñoom question li nga xam ne mooy ay euh, question courante yi la ñuy gérer donc ce qui veut dire que tey Sénégal ministre yi ku ci amatul gouvernement parce que président de la République wàcc na leen mais dina am li nga xamante ni moom mooy gestion des affaires courantes loolu moo am donc dafa am un changement dans le dispositif oui. institutionnel loolu mooy li nga am mooy première chose et loolu je pense que warul jaaxal kenn warul bett kenn parce que prérogative constitutionnelle la bu président de la république parce que depuis le 2 avril moom am na la latitude xool ñi nga xamante ne nii ñooy ay membre gouvernement ñi nga xam ne moo leen tabb mhm. évaluer leen xool exactement ni nga xam ne noonu la ñuy fonctionner sur le plan institutionnel def évaluation dispositif bi nga xamante ni moom la am 18 mhm. mois après mu am li nga xamante ni mooy cadrage ba pare nag aussi ñu am benn mbir boo xamante nii am na moom mooy tey jii dafa bëgg am ay perspectives de changement yu bees. j'entends bien nga mais boo ma ko hmm. mayee rek nga nga baal ma rek ñu taxaw tuuti ci kaw Mimi Touré. encore une fois parce que c'est important. Euh, parce que quand même euh, nekkul n'importe qui mën nañ ko waxee noonu. d'abord ci seen parti muy APR. mais itam ci état bi donc bu ñu jotee euh, décret buy jëmmal ni du nekkati présidente conseil économique social ak environnemental. yoon la ñoo laaj la d'abord sur le plan politique nan lañ ko mën a jàngat. non mais c'est que il faut pas mu amul jàngat ci plan politique. Hmm. parce que président de la république moo ko nommé. moo ko dindiwaat te taxul mu génn parti bi donc ñun suñu parti nii mu nommé conseil nommé parce que aussi il faut se dire que décret bi ko nommé. am na beneen décret moo nommé secrétaire général gouvernement nommé hmm. secrétaire général de la présidence. donc c' est pas pour ñooñu. c' est pas pour des raisons politiques. non déggoo mënul nekk région politique. parce que ñooñu tamit ci suñu parti. est ce pour raison de compétence mën nañu ko wax. waaw non déggoo li ma la wax xam nga raison de lan la. oui raison de changement de dispositif institutionnel ak am benn cap de changement boo xamante ni évaluation bi mu def. jàpp na ne. tey war na am benn cap bu bees ba pare nag aussi. ci loolu Mimi Touré mënu ci woon am lu mu ci indi ci cap bi ñu bëgg jël nii. est-ce que amul leneen lu muy def parce que Mimi Touré mosul nekkul rek depuis 2012. président conseil économique et social. nekkoon na fi. premier ministre. non avant boobu ministre de la justice nekk na fi premier ministre. nekkoon na fi envoyé spécial du président. tout à fait nekk tey président. président euh, conseil économique social environnemental ñu dakkal ay suba mën naa nekk leneen donc c'est comme ça la vie de la république hmm. donc tey li ma mën a wax rek mooy bu ñu ci gis benn euh, analyse politique bu ñu ci gis xajam-xajam nañ ci gis ne président de la république sañ-sañ bi ko constitution bi jox mooy nommé sañ-sañ boobu la ko constitution boo mu dindi ki nga xamante ni nommé na ko ba pare ma wax ne dañu nekk ci jamono boo xamante ne ni Souleymane wax na ko sànq wàllu Covid 19. oui te président de la République boo xoolee mën nañu wax ne am na cohérence ci li nga xamante ni mooy def parce que da nga gis ne bi pandémie bi amee. Hmm. dafa gis mu dem mu presque li wax plan de résilience ak ay mesures yoo xamante ni ànd naag moom. ñu jugee foofu nga gis mu def relance économique boo xamante ni dafa amoon li ñuy woowee PAP 2. mais ñu def PAP 2 ajuster à accélérer. Mm-hmm. te loolu dafa ànd ak benn budget bu bees boo xamante ni présentement fi may waxee yow budget bi mi ngi nekk à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. mais président de la République la cohérence voudrait que. su fekkee am na PAP 2 ajuster accéléré. pendant 18 mois mu nekk ak une équipe. mu ajuster tamit son gouvernement daal di def c'est important. alors que mu xool ay profil yoo xam ne. dëppoo na. ak la vision parce que bul fàtte ne le président de la république moom mooy définir la vision. absolument du du du du, du gouvernement donc moom. docteur Babacar mu jël ay nit ñoo xam ne. dina dëppoo. Hmm. ak li nga xamante ni moom la bëgg ñu doxal ko. mu changer son gouvernement pour doxal loolu. merci beaucoup alors docteur Babacar Diop euh, nan nga mën a jàngatee euh, changement de cap comme ni ko euh, on a honorable Abdou Mbow waxee euh, changement de cap boobu est-ce que d'abord euh, waxtu wi euh, jot na pour yow ak nan nga jàngatee remaniement bi nga xamante ni ci la ñu jëm nga baal ma ma introduire le docteur Moundiaye Cissé plutôt moom mooy nekk directeur exécutif de l'ONG 3D rejoindre ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu Moundiaye maa leen di nuyu di nuyu ñëw fi fekk yëpp mm-hmm. en commençant par vous Chérif merci Souleymane président di ko féliciter ci nouvelle fonction mi comme premier vice-président ak docteur Babacar di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. très bien ñu introduire donc euh, docteur Babacar Diop nan nga jàngatee euh, xew-xew bi di remaniement annoncé. waaw bon Chérif euh, c'est vrai wax nañ remaniement boobu ba léegi ñu ngi ci waax benn décret ñaari décret ñetti décret diw mais décret yooyu ñu jël ay ministres yu nekkatul ministre président. d'une institution Mimi Touré euh, Maxime Ndiaye Boun Abdallah seen vie personnel <laughs> lan la représenté. Mhm. franchement ci askan wi jafe-jafe yu askan wi tayu askan wi ak ëllëgu askan wi ba mën leen a consacrer autant de débats autant de temps man c'est ça le, problème que j'ai pour man amul amul lu mu représenté ci destin. cest à ñi nga xamante ni. ñuy junni junni junni nit Sénégal yu nekk ci jaaxle mooy mhm. xale yi nga xamante ni dañu nekk ci mbëkk mi mhm. tey jii seen bakkan des ci géej gi nekk ay junni nit yoo xamante ni des nañu ci géej gi ci li leen ci yóbbu mooy jaaxle mooy xiif mooy tumuraanke euh, gis nga li xew mbuur ajjuma bi passé ci mhm. gaal goo xamante ni defoon na ñaari téeméeri nit euh, daanaka ni Euh, téeméer yi ak juróom fukki yi ci ndox mi la ñu des. alors docteur nga nga baal ma rek. on va revenir sur euh, ci ci yooyu nga joxe parce que dafay bokk ci euh, débat bi yi ñu nar a waxtaanee parce que mooy li Souleymane doon wax sànq contexte bi. ci ci la ñuy jëm mais dama bëggoon juste ñu jàngat changement cap bi nga xamante ni moom la Abdou Mbow wax yow nan nga ko jàngatee surtout changement gouvernement bi pas le changement sur des personnes mais le gouvernement moo a changé tey jii loolu noo ko jàngatee ak est la. waaw xam nga annoncé guñu cap bu bees. dañuy wax ay nit ñoo xamante ni occupé tuñu ay fonction ci loolu laa wax ni nit ñooñu mm-hmm. fonction yi nga xamante ni moom lañ yoroon lu mu am solo am solo am solo bañ war ko jàngal mais nit ñooñu ñoom ñooy doxal réew mi mooy gouvernement bi may ma ma yeggale mm-hmm. amul solo ci destin ak ëllëgu réew gouvernement bi parce que ministre yëpp lañ dindi ah nga baal ma juste man leeral tamit <laughs> c'est important parce que euh, du seulement Mimi Touré Jean Jean Maxime Simon Ndiaye ak euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne gouvernement bi yëpp la ñu mettre fin euh, ci seeni i donc c'est important quand même. qu'on oui loolu laa bëgg a wax dama ni loolu ça veut dire euh, ñooñu nga xam ñoo nekk ci instruction ñu dindi ko représenté wu lu am solo ci destin ñi nga xamante ni mooy askan wi ak li nga xamante ni mooy jaaxle ci askan wi léegi ci changement de cap boobu ngay wax. Mm-hmm. Euh, ñi ngi xaar gouvernement bi lan lañu ñu annoncé ak lan mooy cap bu bees bi waaye bu fekkee euh, tey jii jël nañ li nga xam ni moo fi daan am mm-hmm. li nga xamoon ni digoon nañ ñu ko ba ñuy tàmbali muy gouvernance sobre et li nga xamante ni digoon nañu ko ba ñuy tàmbali la patrie avant le le li nga xamante ni digoon nañu ko mooy accélérer la la la la la cadence mm-hmm. euh, yooyu yëpp bu fekkee jël nañ ko mooy li nga xam ni digg nañ ko ak li nga xamante ni moo am wuute na à ce niveau j'ose espérer que comme changement de cap nga wax. ci nga bëgg vraiment ma prononcé wu ci. j'ose espérer li nga xamante ni mooy jafe-jafe askan wi. li nga xamante mooy problème de gouvernance parce que le véritable problème de ce pays c'est un problème de gouvernance réellement li nga xamante ni mooy alalu réew mi ñu yor ko yorin woo boo xamante ne euh, xale yi dinañ ci gis seen bopp ñu yor ko yorin woo xamante ni junni junni étudiants yi nga xam am nañ seen bac di xaar ñu orienté leen dinañ ci gis seen bopp baykat yi nga xamante ni seen euh, bay nañ ba pare ñor na ca gouvernance